feddliwaat sunu yaakaar ci Seexuna Ahmadul Xadim ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha yal na ko fi sunu borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram mbokk yi noo ngi amaat mbégte di waajalaat euh, weer wu tedd waaye di ko waajale waat ci dëkk bu tedd di ko waajalit ci jëf ju rëy ju màgg weer wi mooy weeru koor. yi nga xam ne sun borom subhaanahu wa taala moo ko santaane faratal ko ci jullit yi wàcce alquranul karim ci biir weer wi eh, digal ñu ñu di ko woor wax ñu nañ koy woore ak la ca aju lépp eh, ñu koy defee ci dëkk bu tedd bii nga xam ne Cheikh Abdul Xaadir nee na woon jaamu yàlla baax na fépp waaye dana sakkane Tuuba te nit dafa war a bëgg sakkan eh, jëf jiit mu doon nit ku woor ba ngoon suñ borom dimbale la ba nga fexe ba doomu tàndarba ba ba muy dogee wala kaasu kafe ba muy naan wala bu meew wala bu ataaya nga jox ko ko loolu yonent bi alayhi wax na ci ay tuyaaba yu rëy suñ borom it jëlal na boppam engagement ci di ci fay-fay ju rëy loolu mag kon sant waraat na bi ñu toogaatee jumaa ju mag ji ànd ak waa daayira Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne sëriñ Afiye Bousso moo ko jiite mu nekk ci sama loxol ndijoor sëriñ Abdoulahad Bousso moom sëriñ Thierno Bousso nekk ci sama loxol càmmooñ sëriñ Abdoulahad Bousso maasta ngeen min leen ci waar wi ak ci jataay yi mu jëm ci jumaa ji ñëw nag ngir waajal weeru tedd bi nga xam ne moom la ñu bañ a dëg bëgg su ko defee rek ngir njëkkante ak waxtu wi damay njëkk a jox sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno moom mi nga xam ne moo bokk ci commission culture bi te lu ëpp ci li ñuy bëgg a waajal lépp dafa la ca ëpp day waaj wàllu culture ndax yéen a ngi miin mm, jataay yi fi am ci weeru koor yëpp ak la ca aju nga ne moom mooy njiit li dana ci ñëw wax leen commission bi bañ ci tàmbalee liggéey ak léegi ak biñ ci liggéeyee ba tënk ko euh, fanweeri mm, jataay yi ci war a am jataay bu nekk na muy tëddee dana leen ko wax su noppee jataay yooyu dafa am ay waajtaay yu muy laaj yu jëm ci ay koppar buñ noppee it ndogu yi ak niñ ko baaxoo defee am lu mu laaj ci wàllu ay koppar loolu sëriñ Abdou Lahad Boussa Mass mi ci sama loxol càmmoñ dana ci ñëw ak ñi nga xam ne ñoo ci daan jàpp kon mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy seetaan ñu bàyyi xel ci site internet yi nekk Touba ak rajo yi damay daal jox sëñ Abdou Lahad rek wax ko sëriñ bi asalaamaaleykum. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen nuyoo fii ci jumaay Touba di leen sant di leen gërëm di leen baalu àq di baalu àq ñëpp. di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sun borom mu yàggal ko fi te wéral ko. di am mbégte bu baax a baax ci jataay bii nga xam ne defoon nañ ko daaw ñaanoon yàlla sunu borom fekke la ñu ko ren kon ñi ngi koy sant bu baax a baax te di ko gërëm moom sunu borom te di ko màggal di ko kañ ci may gi ñu may euh, kàttan ak tawféex ba ñu teewaat ko ren kon nag moom sunu borom ñi ngi koy ñaanaat tamit mu mayaat ñu ñu teewee ko déwén fekk lépp te ànd ak wér ak kàttan te yokk bu baax a baax. darajay xaadim rasul muy jataay boo xam ne dañ koy waajare liggéey bi nga xam ne mooy liggéey sëñ Touba bi ñu def bi ñu koy defal fii ci koor gi ngir dundal weeru koor fii ci jumaay Touba te daayira Muxaddamatul Xidma di ko def kon sëñ Fallou Galass la ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm te di la ñaanal yow ci taxawaay bi rëy bu rafet bi di ñaanal it euh, télévision Lamp Fall di nuyu seriñ Aliou ak sëriñ Ibrahima Guèye mm-hmm. waaye di sant mboolem téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci MKTV wala GMT ak it bépp site internet wala bépp support boo xam ne yaa ngi jàllale waxtaan wi ñu ngi lay nuyu moo xam ñu nekk ci biir réew mi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew xam naa suñ fàllu kon fekkee dañuy nuyoo wala dañuy nuyoo continuer sof ci laaj bi ci laaj bi mm-hmm. euh, <coughs> kon su ko defee ni nga ko waxee weeru koor xam ngeen ne ñu ngi ci baraxlu te baraxlu sori na incha allah altine ak jàmm la ñuy la ñuy war a séntu weer wi bu feeñee rek dañ ciy tàbbi kenn ku nekk nag xam na te miin liggéey bu rëy bi nga xam ne day daayira Muxaddamatul Xidma daf koy liggéey ci koor gi mën nañoo wax ne fii ñu toll lépp lu aju ci waajtaay ci luy doxal liggéey bi lépp noppi nañ ci ci commission yi nga xam ne ñoom lañu àndal jëpp mm-hmm. ndax dundal weeru koor wi dafa bokk ci pàcc yi nga xam ne liggéeyu daayira Moukhaddamatoul Khidma la te ñu amoon ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ci atum 2005 ñi koy ànd ak opérateur économique yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi euh, nga xam ne ñoom ñoo sos liggéey bi waaye tey kilifa yi dëkk bi fekk si leen ci ki ci jiitu di Cheikh Mouhamadul Mountakha ak ay rakkam ak ay bokkam ak bokki taalibe yi ñoom ñëpp wax dëgg yàlla di jàpp ci liggéey bi waaye rawatina. membre daayira Moukhaddamatoul Khidma ak ñi nga xam ne bëgg nañ lu baax ñëpp ak it waa bitim réew muy diaspora bi yëpp ñi nga xam ne mën nañ leen ci muy liggéey bu rëy boo xam ne ñaari fànn ay liggéey la ni ko suñ fàllu waxee léegi muy koor xam ngeen ne laaj na euh, tàggat ru ndax dañuy xiifal ruu kon su réew nag soo ko xiifalee war ngaa fexe ba sol ci loo xam ne dana ko amal njariñ muy ab yóbbal ci moom ndax yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun dafa mel ne sunu boroom dafa bind ci ñun weeru koor ngir mu fàggul ñu ak ragal yàlla kon nag sagam ruu xiif bokk na ci li koy yar surtout boo demee ba ngoon ñu fexe ba di amal waxtaani diine yoo xam ne ki nekk ci jumaa ji teew ak ki koy topp ci Lamp Fall télévision wala ci site internet yi ñu lëkkalool yépp dana mën a am dalug ndax booba fekk jëmmam yaru dana mën a am dalug mën a teewlu ñu fexe ba def ci sol ko bind boo xam ne mhm. dana ko mën a jariñ mhm. loolu benn fànn la ci yi nga xam ne dañ ciy liggéeyal mhm. ci wàllu xam ndax sëriñ bi nekkoo ndax da ngay jihaat dane waaw damay jihaat waaye nag bil xilmi wa diini maanaam ci xam-xam aragal yàlla lay jihaate kon liggéeyal sëriñ Tuubaa ci xam-xam laaj ci wu rëy la rawatina nag nga nekk ci dëkkam bi nga xam ne waccalu daax benn maskana taallumi wa mawdia al fikrati wa tafahumi wa maskana al irsaadi wa tafhimi wa maskana tas wa maskana al irsaadi wa taxlimi wa maskana taswibi wa tafhimi loola kon ku fi nekk rawatina nga nekk ci xol bi muy fii nga xam ne euh, mooy xolub Touba di jumaay Touba nga xam ne fii lañ mujj a gise jëmmam te lépp loo fi def taalibe yi dañ koy roy ak fu nga xam ne dañuy copier fii kon li ñuy def tax nañu di ko bàyyi xel bu baax a baax loolu na kon benn fànna boobu dafay dundal roo muy wàllu xam-xam muy waxtaani diine yi nga xam ne mi ngi tàmbali bu juróomi waxtu tegalee fanweeri minute ba dog des fukki minute ak juróom beneen fànn bi ci des mooy ndogu yi muy muy muy ndogu yi di di dajale nit ñi ñenn ñi dañoo bëgg a ñëw ngir dogsee ci sëriñ bi mm-hmm. ndax xam nañ ne mm-hmm. loolu moo moo ëpp tawfeex ci lépp ñi ci des dañoo bëgg a ñëw ngir Euh, ñàkk luñ dogoo maanaam néew ci doole. Mm-hmm. loolu nag tax na ñu fi organiser dog yoo xam ne fi ne nii mën nañoo wax ne jéggi na dayoo ci mbooloom fii teew. Mm-hmm. mbooloo mu bëri. Mm-hmm. ndax biñ estimé daaw euh, biñ ko xoolee te natt ko xam naa ku mel ne suñu matarkan su ñëwee dana mën a indi chiffres yi waaye barki dem rek bi ñuy recevoir waa daaira Rimini bi doon indi suukar si. ñuy xool li mu suukar yi nga xam ne li mu saako yi nga xam ne jëfandikoo nañ ko daaw mu toll ci cent soixante sac suukar nga xam ne biñ ko xoolee bët bu set doon nañu jëfandikoo ñeenti saako ak juróom-benn kilo ak ñett loolu soo ko xoolee euh, dafay doon lu baree bari mm-hmm. mbooloo mu bari di ci dog ci kanam tuuti chiffres yi dana gën a ñëw kon suñ xoolee loolu kon daaw bi ñu ko estimé ci mburu mi tamit bi ma ko estimé détails yi dina ñëw ci kanam. xool nañ ne gis nañ ne tamit ñeenti yi nit ak euh, juróom benn téeméer ak lu teg doon nañu fi doge ba bu set nga xam ne dañuy ñëw ñu organiser leen nos leen ñu dog julli timis dem mm-hmm. loolu nag kon liggéey bu rëy rëy la kon nag euh, yaakaar naa woote ab jataay wala leeral liggéey boobu ngir bokki taalibe yi ak bokki jullit yi nga xam ne ñi ngi seetaan xam liggéey boobu mm-hmm. man cee participer mm-hmm. lu ama am solo la lu am solo la xam naa Euh, sooy jëlaat kàddu gi nga nga nga nga waxaale bu baax a baax tamit mm. euh, numéro bi ñuy participer ci liggéey bi lu ci am solo la muy 686 77 686 13 13. képp ku am Orange Money wala Wave soo ko ci jaaralee da nga mën a def sa ñaq ci biir liggéeyu koor gi su ko defee kon ñu njëkkee leeral la pàcc bi njëkk muy fànn xam-xam gi nga xam ne dañ ciy liggéeyal sëriñ bi ci koor gi mm-hmm. muy fanweeri waxtaan mm-hmm. yoo xam ne daaw sax yàlla dogal moom fanweeri waxtaan yëpp a mat ndax daaw mm-hmm. fanweeri fan la mbokki daw ko ndaay moom daal dañuy sawar mu doon juróom ñaar ko juróom-ñeent waaye su ko defee sëñ Fallou xam naa am na benn sous commission boo xam ne ñoo ñoo ñoo bokk ci laññatu saxaafa bi nga xam ne jiite naa ko hmm. ñoom lañ santoon ngir ñuy euh, gën a saytu kii bi hmm. euh, waaye dañ leen ciy wóotu ngir tënk rek euh, tomb yi nga xam ne jàpp nañ koo waxtaane fii ren hmm. bi ci jiitu mooy danañ joxe benn bind ndax waxtaan yi niñ ko nose mooy dafa am li ñuy wax ay duruus maanaa loo xam ne bind la ñuy jox nit ki ngir jàngal ko diineem am loo xam ne ay thème d'actualité lay doon am ñoo xam ne ay fataawa lay doon ah, kon am na fukki tem d'actualité ak juróom ak juróom-ñeenti duruus ak ñeenti fatwa loolu soo ko boolee mooy fanweeri fan mooy fanweeri fan yi juróom-ñett duruus yi loolu loolu kon premier ramadan muy benn fan ci weeru koor ñi ngi war a waxtaane sawm ramadan ahkaamun wa adab maanaam loolu bind la dars la danañ waxtaane attey koor ak ay tegginam loolu xam nga jaadu na kuy dugg ci koor ñu jàngal la loolu jàngal la lan mooy attey koor ak ay tegginam lu koy yàq lu koy defar ak yu demee noonu sëriñ Seexu naa Mbàkke mu Seex Murtada Fadilu moo koy def kon boobu moo ci njëkk ñaareelu waxtaan wi danañ waxtaane ci wàllu ruu mu tarbiyatu ruuxi ruuxiya inda Seexul Xadiim maanaam yar ruu ak njàngale mi nga xam ne Serigne Touba def na ko. Hmm. def na ko ci. Hmm. loolu it tomb bu am am solo la. Hmm. Serigne Xaafiya Ahmad Ñang moo koy def. ñetteelu fan bi danañ waxtaanee dawaabitul amri bil maaruf wa nahyi anil munkari maanaam lan mooy sarti digle ak tere. ak kan la war. muy digle lu baax ak tere ab safaan. loolu tamit yaakaar naa tomb bu am solo la boo xam ne ni nekk nañ ci jamonoom. sëñ Moustapha Diop Ndar moo koy def. ñeenteelu fan bi danañ waxtaanee danañ euh, ñaar yooyu ay thèmes la ñeenteelu fan bi dur dars la ñuy joxewaat mm-hmm. muy bind muy arridaa wal xadaana maanaa bind yu aju ci wàllu nàmpal ak yar xale lañuy jàngale xam nga loolu ay erreur dana ciy bari lool. dëgg la mm-hmm. muy yar ak nàmpal. Mm-hmm. loolu danañ ci joxe ay bind yoo xam ne yaakaar naa su ñëwee. dana jariñ nit ki lool ndax bëri na ñu koy dund ci société bi te xamuñu lu ci lislaam wax ak kan ki nga nàmpalanteel ndax day aram ceew wala yu demee noonu loolu it bind bi li ci fiq jàngale danañ ko danañ ko def mm. euh, sëñ Ibrahima Kebe moo koy def juróomeelu fan bi danañ waxtaane al waqfu fi Sénégal wa afaqa tatwiruhu fi fi fi aw awdaat al muridiya maanaam li ñuy wax waqfu ci Sénégal ak ni ko muridi yi mën a taxawee mm-hmm. ngir mu jëm kanam maanaa wax fu xam nga euh, dañu cee fekk ñun ndax daanaka moo xidma su réewuñ mooy nga tabax sab tabax wala nga tabax sa yor sab société wane ne lii kat lu ciy génn lépp def naa ko euh, ngir yàlla ngir ku ciy jar ngir ngir sama samay ndono duñ duñ ko dond ngir ñu koy jariñoo faneen mm-hmm. loolu la waxtaane ak taxawaay bi nga xam ne murit yi am nañ ko ci ak it Sénégal xam nga am na benn loi bu ñu def ngir loolu te loolu it leeral ko am na ci solo mm-hmm. ki koy def mooy docteur Abdoulaye Diakhaté docteur Abdoulaye Diakhaté juróom-benneelu fan gi danañ waxtaane jariñ mbindeef yi yàlla yi njariñam ak i fànnaam maanaam njariñ mbindeef yi mbindeef yi yàlla yi jariñ leen ni mu amee solo mm-hmm. ak fànn yi nga xam ne ci lañ leen mën a jariñe mm-hmm. loolu it yaakaar naa am na solo sëriñ Abou Mbacke Basir moo koy def Euh, juróom-ñaareelu fan bi danañ waxtaane fatwa muy laaj yi nga xam ne moo fi rot sëñ Mbàkke Abdourahmane dana ñëw tontu ko muy laaj ak tontu juróom-ñetteelu fan bi danañ waxtaane li ñuy wax euh, wàññi ak boole ci julli maanaam loolu ab ab tom ab sëriñ Abdou Lahad Sané docteur Abdou Lahad moo koy def muy fan la la wàññi di ware ak fan la la jamxu di ware muy wàññi julli ak boole julli ñaari julli loolu it lu am solo la masuliyatul mawaatin fi ixtiyaar al xaakim si Cheikh na moo koy def dana waxtaane warteef yi yi nga xam ne moo war ci citoyen bi ngir mu tànn njiitum réewam mm-hmm. juróom-ñetteelu fan kon nag boobu boobu tomb it yaakaar naa ñu ngi ci mm-hmm. ñu ngi ci jamonoom sëñ Seexuna Mbàkke doon moo koy def juróom fukkeelu fan bi danañ waxtaanee eh, ay sunna yi yi nga xam ne bari na ñu koy sàgg ne maanaam sunna yi nga xam ne ay sunna yi sunna yi yonente bi la sallallahu alayhi te bari na ci mbooloo mi ñoo xam ne ñàkk na ñoo xam ne lii sunna la ba tax ñu koy sàggane si seexu naa bu sa cumbuleen moo koy def juróom fukkeelu fan bi ak benn danañ waxtaane suñ Souleymane Badiane dana ñëw waxtaane euh, li nga xam ne mooy atte euh, xidda ak ay xeetam ak ay atteem maanaam idda dana ëmbaale idday jigéen guñ fase ci sëy wala idday ku faatu mm-hmm. yooyu Euh, tamit xam nga ne bëri na ñoo xam ne danañ koy jaawale ci ci ci askan wi te loolu ëpp naa jaawale loolu it danañ ko waxtaane ki koy waxtaane mooy Sëriñ Souleymane Badiane mm-hmm. fukkeelu fan bi ak ñaar danañ indi xasida ak Matlabul Fawzayni e, dirasa ko li ñuy wax dirasa maanaam jàngat xasida ak Matlabul Fawzayni génn ci ay bind mm-hmm. xam nga ne Cheikh Mouhamadou Mountakha wax na ci wax yu am solo fan yi mm-hmm. boobu nag Sëriñ Mamour Mbacké am di moo koy def ci fukkeelu fan bi ak ñaar fukkeelu fan bi ak ñett Sëriñ Sambusa Abdourahmane dana ñëw andi benn leetar boo xam ne suñ Mbàkke Buso daf koo bindoon benn buur bu ñuy wax ngalandu tudde ko lisaanul xaq yatakallam boobu nag danañ ko indi jàngat ko indi ci ay bind ngir képp koo xam ne yaa ngi wut nguur wala nga nekk ci nguur dénkaane boobu ko suñ bu su joxoon buur boobu nga mën cee roy te loolu it ñu ngi ci ay jamonoom euh, fukkeelu fan bi ak ñeent danañ defaat jataayu fatwa suñ Seexuna Abdu Wadud moo koy def fukkeelu fan bi ak juróom danañ indi jàngale benn bind boo xam ne sëñ Mbàkke Abdourahmane moo koy def ñuy ñu ñu ñu ñu jàngale lu aju ci wàllu euh, labat labat soxna ak ponk yi nga xam ne moom la ci lislaam santaane mm-hmm. loolu mbokk yi nga xam ne ñoo ñoo toll ci waaja denc war nañoo fonk euh, teewlu waxtaan woowu ndax labat it dafa ay àtte dëgg la waaw ak lu ci lislaam santaane fukkeelu fan bi ak juróom la sëñ Mbàkke Abdourahmane moo koy def fukkeelu fan bi ak juróom-benn danañu waxtaanee eh, warteef yi nga xam ne eh, ñaaw <clears throat> lu aju ci wàllu xayawaan yi maanaam ñeewante yi nga xam ne war na ci mala yi ak warteef yi nga xam ne moom la ci diine gàll jaam bi loolu tamit buñ ne mala yi fas yeeg mbaam yeeg picc yeeg mm-hmm. nag yeeg yooyu yëpp mm-hmm. am na ay warteef yu ñu sunu borom sant suñ digg ak ñoom Mm-hmm. tey dafa mel na li ñu leen di cuurankeel ak li ñu leen di sonal bari na mm-hmm. te bari na ñoo xam ne xamuñ ne loolu àq man na ci am seen digg ak mala bañ yor mm-hmm. te dëkk bi xam nga bari na sareet ak mbaam te coono yi bëri na kon loolu mat naa waxtaane ñu xam tamit euh, lan la ci euh, lislaam santaane loolu ki koy def mooy sëñ Fallou Bousso Thierno fukkeelu fan bi ak juróom-ñaar danañuy waxtaane euh, sëñ Mbakke dem mooy waxtaane waajtaayu génn àddina maanaa maanaa loolu nag su du caagee ne sukkuraat la wala dara waaye dañuy waxtaanee nit ki balaa génn àddina yi nga xam ne war na koo def en tant que jullit mm-hmm. parce que léeg nit génn àddina lu bëri jaxasoo ci moom mm-hmm. mooy euh, waajalut boppam ci euh, bind dara wala mm-hmm. dara dénkaaneem yeeg yi ñu ko dénkoo nag nga xam ne bu bu génnee àddina kenn du ko xamal dara te loolu bokkul ci lislaam santaane loolu nag kon moo tax danañ indi tomb boo xam ne danañ ci waxtaan ngir nit ki xam ko ngir man koo bàyyi xel xam ne nit ki dana bind léppam fukkeelu fan bi ak juróom-ñett Sëriñ Abdou Seex dana ñëw waxtaane jëf yi nga xam ne dañ koy tere ci jaay ak jënd commerçant bi jaay war naa xam li ko sant ci la muy jaay ak ki muy jaay ki hmm. war naa xam yan sart ko lislaam sant ci li jënd ak euh, bala caa bala caa am àq hmm. fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent danañu waxtaane jàng jigéen ay jubluwaayam ak i saq e, jeexitam maanaa njàngum jigéen xëy na e, loolu sëñ Cheikh Mokhtar Lo moo koy moo koy waxtaane maanaa dana dana ëmbaale liggéey ci ci wàllu jigéen gi nga xam ne dafay yor entreprise wala muy jàngale wala dara mm-hmm. loolu nan lay mën a boolee loolu ak liggéeyu këram ak àq ji mu war a jox borom këram ak mu war a jox kër gi ak yu demee noonu te loolu jàpp naa ne jigéen ñi léegi bari nañ ñoo xam ne dañuy gën ne dañoo war a liggéey kon loolu war na ñoo xam leen ci lislaam sant mhm. euh, fukkeelu fan bi muy ñaar fukkeelu fan bi sëñ Cheikh Ahmadou Mbacke ñang dana ñëw moom sëñ Modou Mamoun ñang dana ñëw waxtaane ci waxtaan ci jumtukaay yi jokkoo yi xarala yi ak seeni jeexit si soppi jikkoy nit ki loolu tamit sëñ Fallou tomb bu am solo la lool ndax fi ne boo xoolee doomu aadama yi jamono ji réseaux yi ak ni tisaaroo gum tisaaroo mhm. surtout rawatina wàllu politique bi tax na am na ñoo xam ne daanaka dañ ko jël def ko diine di am sax ñuñ ciy mere ngir bëgg ñu jël ay position ak yu demee noonu te xam nañ ne bu dee yoon tariixa bi defar ruu lañ ko sant mhm. yoonam nekkul ci loolu mhm. kon am na position yoo xam ne waru ko ci Mm-hmm. loolu nag jeexital bi mu am ci ci ci ci ci ci ci bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ba mu indi ak noonoo goo xam ne mm-hmm. sax léeg dañuy day tax muy jeexital ci mm-hmm. lañu war a jëf ci seen digg ak uh, fa ñuy jëf loolu lu am lu mat a waxtaane la sëñ seex Mbacke ñangi moo koy def ñaar fukkeelu fan bi ak benn sëñ Fallou Boussa Assane uh, sëñ Cheikh Boussa Assane def ñaar fukkeelu fan bi ak ñaar danañ indiwaat benn bunt boo xam ne ci durus maanaam bunt bu ñuy jàngale muy suñ Mbàkke Abdourahmane moo koy def. Mhm. di fas yéene waxtaane ci euh, fase li ñuy wax fase. Mhm. maanaam àttee fase ak jeexit yi nga xam ne am na. Mhm. nan la ko lislaam jàngalee. waaw loolu it mat naa waxtaane ñaar fukk ak ñett danañu waxtaanee warteef yi nga xam ne euh, am réew maanaa warteef warteef yi nga xam ne. nit ki war na ko ci li nga xam ne ñëpp dañ koo bokk mhm. maanaam li nga xam ne askan wépp ko bokk mhm. ah? maanaa euh, lan moo ci responsabilité mhm. euh, bi nga xam ne ñëpp bokk nañ ko maanaam am réew daal yi nga xam ne moom la ñëpp bokk waaw moom la ñëpp bokk kenn ku nekk la ci sa responsabilité waaw waaw ah, loolu sëñ Fallou Moussa Assad moo koy def léegi ñaar fukkeelu fan bi ak ñeent melokaanu kilifa diine ak wàccuwaayam mm-hmm. ci lañ war a waxtaan mm-hmm. cheikh mu maamun cheikh mahamadul fadal moo koy def mm-hmm. waaw uh, ñaar fukk ak juróom war nañoo waxtaan uh, indi benn darsa boo xam ne dañuy leeral lenn ci uh, luy leeral lenn jàngoro yi nga xam ne mooy jàngoro yi caay-caay yi nga xam ne jaam bi daf koy daf koy bindoo Euh, te war koo moytu moo xam ci digganteem ak boroomam la wala ci digganteeg nit ñi mm-hmm. te loolu sëñ Tuubaa jàngale ko ci benn bunt boo xam ne mi ngi ci Masaalikul Jinaan bunt boobu nag sëñ Muntaxaa Jaatara dana ñëw mm-hmm. jàngat bunt boobu ngir nit ñi man man man cee roy mm-hmm. ñaar fukk ak juróom benn sëñ dana ñëw waxtaane ci daayira yi murid yi maanaam yi nga xam ne mooy daayira yi yi seen taxawaay ak euh, yi nga xam ne mooy li leen war dëgg-dëgg loolu it euh, waxtaane daayira ak euh, li ko war ak taxawaay yan mu la xaar ci ñoom mhm. sëñ sàmm dana ko def euh, liggéey jigéen ak i sartam yi nga xam ne diina sant na ko ko mhm. docteur Khadim Silla dana dana ñëw waxtaan ci ñaar fukkeelu fan bi ak juróom-ñett sëñ Ahmadu Mbàkke Daaru Muxti dana waxtaane ci li ñuy wax nangu gi nga xam ne Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala nangu na ko nekk jaamu bi yàlla déggiin wi ak ni ko maanaam nangoo nekk da jaamub yàlla déggiin wi ak ni ko sëriñ Tuubaa jëmmale mhm. maanaam li ñuy wax alxubudiya maanaam ak jaam mhm. maanaam déggin wi nga xam ne sëñ Tuubaa am na ko ci ak jëmmal gi nga xam ne jëmmal na ko mhm. ci ci boppam ak jëmmal gi mu ko jëmmal ba fésal ko ci diine ji ak eh, ni mu ko jëmmal loolu suñu Ahmadou Mbacké Daaru Muxti moo koy waxtaan ñaar fukkeelu fan bi ak juróom-ñeent danañ indi benn bind ci fatawa fanweeri fan yi nag ñu waxtaane lu aju ci wàllu jàkk ak taxawaay bi nga xam ne moo war sëñ Fallou kon macha allah loolu mooy tomb yi nga xam ne lañ lañnatu saqaafa tànn na ko mhm. euh, ànd koog daayira Moukhaddamatoul Khidma ngir ñu war koo waxtaane ci koor gi xam naa ñu tëgg kàddu yi foofu Abdoul Ahad euh, yaakaar naa ne li nga tënk leer na ci boppam ñi nga xamante ne bii euh, ñi ngi bàyyi xel weeru koor yi ci jumaa ji ci ci ci li la takkusaan si 17h jëm jëm waxtu dog liñ baaxoo di ko am ci rajo yi ak ci site internet yi ak ci télévision yi yaakaar naa ne eh, ñiy topp jotaay bi danañ daal di jël seeni note ndax dafa mel ne tomb yi amu ci benn boo xam ne wares na ko mën a ñàkk déglu ndax njëriñ la muy jur eh, yaakaar naa ne ci tomb yooyu rek boo ko seetee mooy yi réew mi waxtaane te mooy yi ñu gën a tumuraanke lëj wi am ci àdduna bi yëpp ñàkk a xam lii la waaye buñ ko déggoon duñu am benn jafe-jafe kon ma ñëw ci sëñ Abdou Lahad Bousso Massa yaakaar naa ne yow yaa yor li nga xamante ni bii moo jëm ci lii tax yëf yi yéwén lii tax yëf yi yéwén te loolu weesuwut mm, li may wax toujours ne ku bëgg a bokk ci ku bëgg bokk développé Touba daal bokkal ci Touba ci kanam ndax wootab Touba ci kanam moom weesuwut andi leen xaalis ma defal leen ko ci dëkk bi waaye nag lii ñuy waxtaanee it. képp koo xam ne bëgg nga waxtaan wi jaar yoon boo dégloo déggu ko boo xoolee gis ko bu doog jotee ña fa nekk doog faw nga déglu sëñ Abdou Lahad bu sa mii ndax mooy tax loolu mën a jàppandi kon sëñ Abdou Lahad ma bàyyi la kàddu gi nga nuyoo ñëw ak ñun ci programme bi ak ñi nga xam ne nag baaxoo nañ leen di leen ci jàppale ni ci biir réew mi ak ci bitim réew billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax di leen sant di leen siyaare di leen ndokkeel ji jiite ci nuyoo bi ak siyaare bi sëñ Tuubaa Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi toog a jëraayu Seexul Xadim ku ne xam ne daayira Muxaddamatul ma lépp lu muy def rek ci ndigalul ku fi nekk Seexul Xadim ci lay tàmbalee kon ñu ngi leen nuyu ci turam di leen sant di leen gërëm di nuyu teg nuyoo bi ci loxoom moomu mu jàll ti mboolem njabootu Seexul Xadim gi ak mboolem taalibe Seexul Xadim ni ñu ko baaxoo defee waxtu nekk bu ñu tollee fii dem ca moom mu yees laan digal li noonu la ame noonu tamit noonu la ko daa defee bu ñu eggee ci benn fan bi mu yebal ñi muy yebal baaxoo yebal sëriñ xabaan moom Cheikh Mamadou Fadal mu ñëw ci bisu ubbite gi ubbil ñu ko wala kanin ku mu yebal rek. naka noonu tamit di sant Cheikh Moustapha am sëriñ Abdou mi nga xam ne moom it yaa dogal na demee ci bis fu mujj bi séentu bu njëkk bi moom la sëriñ bi di yabal mu ñëw fii ngir tëj waxtaan wi ñu ngi nuyu baax di ko sant di ko gërëm ci yitte ji am ci liggéey bi di sant képp koo xamante ne ak nuyu da nga ànd ñun liggéey bi ak wet goo ci mën a ànd ñun liggéey bi rek. ñooñu nag bokk na ci ñi nga xam ne ñooy opérateur économie yi nga xam ne eh, taxawaay bu am solo la taxaw ci liggéey bi ñooñu buñ ci tuddee ñenn danañ ñu yëkkati loolu tegal ñu ko ci loxol kenn koo xam képp koo xam ne yaa ngi jëf di ko jaarale ci ñoom wala ngay def directement ci daayira bi buñ ci tuddee Serigne Moussa Mbaye ak Serigne Bara Diop. Mm. ak Serigne Fallou Galas xuma danañ mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp. di sant yàlla bu baax nag ci foofu noonu bala ñuy jàll ñu fàttaliku ñoo xam ne yàlla suñu borom daa dogal liggéey bi dañ ko daa ànd ñun tim ñor leen lool ñu am ci pastéef lool ñu fàttaliku ñaan képp ku seetaan lii fa man di nekk seetaan ko fa nga dolli leen ñaan kooku bokk na ca sëñ Moustapha am Cheikh Massamba ku ne xam na ni ko lii ñore woon ci alalam jotam bis bu njëkk bi day ñëw ànd kook ñun bis bu mujj mu ñëw ànd kook ñun alalam jiitu ci noonu tamit képp ku xam ne tamit euh, gis na la xiir la ci liggéey bi nga def ci sa loxo kon nag ñu ngi koy fàttali ko baax ci ñaan waaye di fàttali ko tamit sëriñ Maam Moor moom Cheikh Ahmadul Fadal nga xam ne baaxoo naa ñëw ci bis njëkk bi ubbil ñu waxtaan wi ba noppi ñëwaat fi jàpp ci liggéey bi kon ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla suñu bor dolli ko yërmande ak njéggal te sàmmal ko njaboot gi. waaye noonu lañ ci tege tamit soxna barakatu bu so soxna gàdd. Mm-hmm. ku ne xam na ne yitteem jëpp da koo jógoon jëmale ko ci daayira bi njëkk daayira bi soso sax ci dogu yi daan wut ay trang di ko andil ñi nekk ci jumaa ji. Mm-hmm. bi daayira bi tàmbalee tamit noonu la def ànd koog ñun. kon ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla dolli ko yërmande. Mm-hmm. ak njéggal ci yàggal ak njabootam. noonu lañ ci tudde tamit Serigne Moustapha gajaga ku ne xam ko ni mu daa ànd ñun ci liggéey bi ci taxawaay bu rafet bokkoon ci opérateur économie yi ak Serigne Xaarim Lo moom it noonu la meloon ci liggéey bi ràññu ko ci lool taxawaay bu rafet rafet bu ñu tuddee ñooñu rek kuy ñaan ku nekk rek na nga fasaaleel képp koo xam ne ñu tudd ñëpp yàlla suñu borom doole lañ jéggal ak yërmande ñi jiitu ñëpp yàlla defal leen ko liggéey bi àtt na lépp nañu ñaan ñëpp yàlla defal leen jéggal di sant bu baax nag ni ñu ko waxee euh, mbooloo yi nga xam ne dañoo baaxoo ànd ñoom liggéey bi loolu dala ko ci kilifay diine yi nekk ci réew mi ba génn bi nekk ci dëkk bi ba génn dëkk bi ñoom ñëpp di tànn ay bis di fi ñëw di ànd ñun liggéey bi kenn ku ci nekk ñu ngi lay sant di la gërëm ba ci noonu kilifay aada yi nga xam ne ay ñu wuute lañ ci fa ñu féete waaye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da nga bàyyi sa yitte ñëw ànd ak ñun liggéey bi ak mbooloo yi nga xam ne tamit ñoo bokk ñoom toolu seexul xadim bi di ci liggéey mbooloo yooy di bàyyi seen yitte tamit di ñëw ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax ñu mbooloo yu bari la ndax kure ne xam ne daaw 72 délégation ñëw nañ fi ci délégation yi benn bu ci nekk danam doon ñetti nit léeg-léeg sax mu teg waaye li ci ñetti nit lay doon kon loolu kon xam ne mbooloo mu bari la mm-hmm. kii bokkut ak ñi nga xam ne rek dañuy tàmm ñëw ànd ñun liggéey bi kon ñoom ñëpp ba ci fajkat yi yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm di jotal ak cant nag ñi nga xam ne liggéey bi dañ cee jàpp jàpp gu rafet gu yaatu di mbokki taalibe yoo xam ne yàlla sunu borom dafa dogal doonuñ ñoo wax ne dañuy fee nekkut tax jàppuñ ci liggéey bi ndax sëñ Fallou ku ne xam ne ne jege gi sori dafa am sori gi jege am. waaye ñi may bëgg a lim de ñoom ñoo ñi nga xam ne sori nañ waaye jege nañ ci Seexul Xadim ci liggéey bi loolu mooy mbokki taalibe nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñooñee nag danañ ko tàmbalee ci Afrique fi réew nekk rek di ànd ci liggéey bi ñu ngi lay sant di la gërëm di la soññ ci li ci kanam dañuy tàmbali nuyoo ba ak cant ya nag ci loxol Serigne Mafari Ndiaye mi nga xam ne ci Afrique googu liggéey nañ fi liggéey bu rafet rafet bu ñu demee Mali danañ sant maam sëñ maam Balla Mbakke ak sëriñ Jili Mbow ak sëñ maam Balla Gueye ñu tegal ñu cant yi ci mboolem ñi ànd liggéey bi bu ñu demee Côte d'Ivoire danañ sant sëriñ Sadex Kan ak sëriñ Touba ñu sant ñu teg ko ci seen loxo ñu santal ñu mboolem ñu àndal liggéey bi. bu ñu demee Guinée Conakry. dinañ sant El Hadj Abdou Ndiaye ak sëriñ Babacar Ndiaye. ñu tegal ko ñu ci yàqal liggéey bi yëpp. bu ñu demee Cameroun dañ ko teg sëriñ Mamoun Dramé mu tegal ñu ko ci loxol ñi seqal liggéey bi yëpp bu ñu demee Gabon danañ ko teg ci loxol Serigne Badou Seye Badou Sène mu tegal ñu ko ci mboolem ku yëngut ci daayira bi bu ñu demee Togo danañ san nuyu ko teg ci loxol Serigne Mamoud Dramé mu tegal ñu ko ci ñi seqal liggéey bi yëpp. bu ñu demee eh, Cap Vert dañ ko teg ci Serigne Touba Thioune ci ñoom ñoo xam ne ren jii lañ tàmbali ci seen yëngutu ngir jëm ci. liggéey bi. bay woote nañ fi ngir jàpp tàmbali. di fa mm-hmm. liggéey kon képp koo xam ne nekk nga Gabon nga fa seenee sof sab liggéey ci mbokk mbokki taalibe yooyu nga xam ne am nañ yéen jàpp ci liggéey bi. bu ñu demee Burkina Burkina Faso dañuy teg bi ci loxal sëñ Mouhamadou Bamba Seck mu tegal ñu ko ñi mu liggéey bi yëpp demee Nesria sëriñ Waagaan Fay lañ ko teg ci loxoom mu tegal ñu ko ci loxol nii yëpp. di nuyu waa Gana yëpp ak ñi seq liggéey bi yëpp bàyyiwuñu kenn seen taxawaay bu rafet bi nga xam ne yàgg nañ ko def bu ñu jógee foofu dem ci Espagne euh, danañ fa euh, nuyu ak sant sëriñ Assane Diop mi nga xam ne dana leggéey liggéey bu rafet ci Europe gépp waaye rawatina ci Espagne googu liggéey bi jaraw ko lu ne taawam alalam xelam yi xalaat yëpp ku koy jàpp ci nga koy jàppe képp kum ci gis. nga di ci yëngutu da nga koy daal di neex hmm. kon sëriñ Assane ñi ngi koy jotale ay cant ak i ngërëm yoo xam ne ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma yëpp la jógee ngir liggéeyam bu yaatu bu ci ciy liggéeyal buñ ko tegee ci loxoom nag moom jëw ni ci ciy coordonné danañ ci teg euh, Serigne Mbacke njaay mi nga xam ne moo jiite fédération Cheikhoul Khadim mi nekk Espagne yëpp hmm. ak Alaaji Abdou Ndiaye mi nga xam ne moo nekk Îles Canaries ñoom ñëpp ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu di teg nuyoo bi ci loxo Serigne Abdou Ndiaye bu ñu demee Palma Serigne Adi Touré nañ mi nga xam ne mooy jawriñ ji ñu koy teg ci loxoom yëpp ak Baye Dame Lo mi nga xam ne Baye Dame Lo moom Cheikh Moustapha Al Karim mi nga xam ne mooy coordonné liggéeyu daayira Muxaddamatul Xidma ci Espagne gépp ci am passif bu rëy. am liggéey bu yaatu boo xam ne bi mu dugee ci loxoom ak yéegi jëf nañu ko ci kon Baye daam Loum Cheikh Moustapha Al Karim ñu ngi lay sant bu baax ci tur daayira Moukhaddamatoul Khidma di la gërëm di ñaan yàlla sunu borom kàttanal la dëgëral la ba nga bëgg a liggéey eggale nga eggale ci bàkk sil xadim di sant euh, waa association Moukhaddamatoul Khidma ci njiital Serigne assan Diop ak ma Mamour Guèye ak ñi àndal liggéey bi yëpp di sant ka soññi waa Italie mm-hmm. sëriñ Ibrahima Ndiaye xasida nekk ca bopp ba ak sëriñ Darou Touré ak sëriñ Ibrahima Sey Toscana ak sëriñ Fallou Diagne Toscana ak sëriñ Saliou Fall nekk Sardinia waaye tamit di teg loxo nuyoo boobu ci jëwriñ liggéey ba nga xam ne ñu dégg Seex Xadim te am engagement ak liggéey bu yaatu boo xam ne am nañ ko ci daayira Moukhaddamatoul Khidma muy sëriñ mi nekk Brésia kër nga xam ne moo yore jamhiya ba ñu ngi leen di sant ci li weesu yëpp di leen gërëm ci li ñuy jublu si di leen soñ ci li ñu jublu si ngir ñu fas yéene cee jàpp nañ ci war a di jàppe ci kaw loolu tamit ni ñu leen sant ci ndogu yii nañ ci war a jàppe képp koo xam ne yaa ngi seetaan vidéo bi tamit ñu ngi lay fàttali liggéey bi nga xam ne day mu moo daayira Moukhaddamatoul ma jox na ko waa Italie gépp mu jëm ci baas yooyu nga xam ne moom la war a dajale ngir mu ñëw fii ci jumaay Tuubaa hmm. ngir jumaa ji war koo am ba dutu ko luyee fenn kon ñu ngi leen sant bu baax di jiital ci sant bitim réew bii nag ki nga xam ne bari na fu liggéey bi egg léegi bu fa yaatoo ba mel ne war a mel moo ko waral muy sëriñ Mamour moom Cheikh Mamadou Mourtada jàpp daayira mu xadamatu xidma jàppale leen kon ñu ngi koy sant bu baax sëriñ Mamour di ko ñaanal yàlla suñu borom kàttanal ko ba fa mu bëgg a la liggéey bi ci lislaam ci toolu Cheikhul Xadim bi mu eggale ko mm-hmm. wax dëgg yàlla suñu xel sedd ci moom ndax ku ñu bàyyi te waxtu nekk mi ngi bàyyi xel liggéey bi lu mu ci gis lu muy luy defar danañu ko wax lépp lu dul soññ tamit danañu ko wax ñu ngi sant suñu maam Mor bu baax di ko ñaan yàlla suñu borom kàttanal ko dëgëral ko. bu ñu demee France ñu yóbbeeg cant yi dañ koy teg ci loxo Serigne Modou Fall Kebe mu ak Serigne Cheikh Diouf ak Pam Ndaw ñu tegal ñu ko mbokki taalibe bi ci xel liggéey bi yëpp bu ñu demee Norvège dañ ci teg Serigne Baara Mbegare ci loxoom lañ koy teg. mu jotal ñu ko ci ñim seqal liggéey bi yëpp te ñekk ci euh, Norvège bu ñu demee Belgique sëriñ Abbas Dieye ak sëriñ Ousmane Baye Fall ak sëriñ Moustapha Amar lañuy ñuy toog nuyoo bi ci seen loxo ak cant yee gërëm yi ak soññe yi ñu jotal ñu ko ci loxo mbokki taalibe bi yëpp bu ñu demee Portugal danañu sant sëriñ Baye Portugal sëriñ bay Sow ak sëriñ Modou Sow ñu sant leen ci liweesu gërëm leen soñ soññi leen ci li ñu jublu si lépp su Serigne Diop Baye Fall ñu la ñuy teg lu nuyoo bi ci loxoom mu tegal ñu ko ci waa Suède yëpp sant leen ci li weesu ñi leen ci lu ñu jublu si Danemark Serigne maam Thierno Fall la ñuy teg lu nuyoo bi ci loxoom mu tegal ñu ko ci mbokki teel bi ñu seqal liggéey bi yëpp almaañ Serigne Cheikh Gueye lañuy ñuy sant ci li weesu di ko soñ ci li ñu jublu ak ñi seqal liggéey bi yëpp bu ñu demee ci Angleterre di jàmbaar yu am pëstef ci liggéey bi ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax ci li di leen gërëm ci li ñu jublu si Eh, di leen soññiti lu ñu jublu si buñ ci tuddee sëriñ Abdoulahi Dieng Fawseyni mi jëwriñ ji ak sëriñ Fallou Diop borom Pastef ak sëriñ Abdou Mbay ak sëriñ Baara Ndiaye Baye Fall ak sëriñ Talla ñu teg ko seen loxo ñu jotal ñu ko mbokki taalibe bi ñu seqal liggéey bi yëpp. bu ñu demee Amérique am na foofu fondation Moukhaddamatoul Khidma bu am solo di taxawaay taxawaay bu liggéey bu am solo ci liggéey daayira Moukhaddamatoul Khidma te sëriñ Cheikh Jonn ak sëriñ Amsatou Lam ak soxna may Maymuna Thiam ak soxna maam jaar Faye nekk ci bopp ba buñ ko tegee seen loxo danañ ñu ko jotal ñu bokk ci fondation yëpp yëpp ak ñu nekk amiri yëpp waaye di sant waa FONCAB ci seen taxawaay bu rafet ci daayira Moukhaddamatoul Khidma ci Serigne Fallou Samb doon jëwriñ ji di sant waa Brésil buñ tuddee Serigne Mohamed Thiam ak Serigne Aymiru Jaxate ñoom it danañ yóbbaale ñi nga xam ñoo nekk Brésil yëpp ci seen taxawaay bu rafet bu ñu demee Orogré Serigne Ndonga Ñang ak ñim siqal liggéey ba yëpp ñu ngi leen sant di leen gërëm ci liweesu weesu di leen soññi leen ci kanam waaye ñu dem ba ci Argentine Serigne taala Sall doon jawriñ jë ak Serigne Modou Cissé ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ci li weesu lépp di leen gërëm xam naa ne euh, liñ waroon def lépp ak lim lépp xam naa bu ñu tuddee ñii rek dana ñu yóbbaale ñi ci des mm-hmm. waaye ñi ngi sant képp koo xam ne daa nga ànd ñun ci liggéey bi mm-hmm. di tàllal loxo ci képp koo xam ne yaa nga ànd ñun ci liggéey bi nga xam ne liggéey la bi daal liggéey bu yaatoo yaatu la boo xam ne foo man di nekk da nga xam ne mën nga cee jàpp na nga cee jàpp nag mooy boo ñëwee ci jumaa ji da nga ñu fekk koor gi boo soree ba bëgg cee jox sa loo xam ne da nga ko bëgg a dawal ci dawalukaay yi am na Wave am na Orange Money numéro bii ñuy wax 77 686 13 13 77 686 13 13 moo nekk ci turu daayira Muxaddamatul Xidma lépp lu waay di yónnee boo ko fa jaaree dana egg ci ñi nga xam ne ñooy dajale wàllu googu ngir mën ñu koo bind la ca war danañ ko topp ba jël ko waaye ñu ngi sant ñëpp daal di gërëm ñëpp ci turu daayira Moukhaddamatoul Khidma turu Serigne Afia Bousso mi nga xam ne mu nekk ci bopp bi di jaajëfal ñëpp di leen soññ ci liggéey bii nga xam ne amatuñu sañ-sañ mu laal suuf amatuñu sañ-sañ mu ñàkk jëm kanam kon nag loolu nag fu taalibe ba nekk ñun waa daayira Moukhaddamatoul Khidma dañoo gëm ne barab bii ñu nekk ñëpp ko séq ñu téye ko di leen ko sàmmal sàmm googee nag képp koo xam ne yàlla dogal na mm, nga ñëw sa bunta ngi fi dañ la ko jox nga téye ko loolee nag dana tàgg te na xam ne liggéey bi nekkalu fi fi ñenn ak ñenn képp ku nekk foo ci yem yaa fa yem na sa bopp ñu ngi tàll loxo ñëpp ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp di soññi ñëpp te fas ne taali bu ci jàpp ne bul yem ci naa ci jàpp na nga fas yéene kaneen koo xam ne jàpp ci liggéey bi moo jokko ñun ngi jàpp ci liggéey bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad eh, gënati naa leer eh, jëwriñ ñi nga xamante ni bi yàlla dogal na ñu nekk ci biir réew mi ak ñu nekk bitim réew it dégg nañ waaw góor ji nga xam ne eh, sëriñ mu daminte Fall daana wax na jaajëf gàtt na waaye ku jëfut di su la ko wax te li ñuy jëf am joxal ma sëñ Tuubaa rek la wóor leen ne liñ doon joxlu sëñ Tuubaa it agsi na ci loxoy sëñ Tuubaa ndax ñii li ñuy liggéey buñ gestoo seen sëñ Touba ngelaw li leen di upp day jaar ci sëñ Touba ñëw ci ñoom <coughs> kon yaakaar naa ne liggéey bi leer na <coughs> liggéey boobu nag yaakaar naa ne sëñ Maxtaar kan ñëw na te eh, kaddu yi muy bëgg a yëkkati bu ko yëkkatee daañu xam ne lii kat laaj na waajtaay ci jamono toll waajtaay mu jëm ci xaalis ak matériel ba mu laaj te dana ci ñëw incha allahu rabbi loolu moo tax ñuy joxe numéro Wave weef bi li may wax mooy bul ci xeeb sa ñaar dërëm ndax ki joxe milliard ak ki joxe ñaar dërëm te ñu bokk jenn pas-pas ak jenn yéene ñoo yem ci genn pay rek kon yow fi nga toll bul ko xeeb ci numéro bi ñu joxe 77 686 13 13 loolu it la ci gën mooy bu ma ne naa xaar koor ginnaaw dégg nga gën rek daal di koy def ndax xamoo lu koor di ñëwee ak na mu lay fekke man naam fii ñu ko wax ci guddi gi nga dégg ko am nga sa jéem dix mille franc wala sa cinq mille franc wala sa mille franc yooyu ci war a dugal te naa am boo demee baa ngi ci koor ga bu bu bu jàppandiwut mën na caa bañ a dem kon fi nga ko dégg rek yow daal ko ci tàbbal xam ne yaa ngi ci waajtaay wi kon sëñ Maxtaar yaakaar naa ne toll ngeen ci wàllu nag jekk ndax buñ demee bañ na ñetti fan a des ci koor wala ñaari fan loolu moom amatul waajtaay jekk rek tàbbi ci biir koor bi la nan ngeen préparé ngir mën a sóobu ci liggéey bi bismillahi rahmaani rahim barakati xaalim rasul salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu mbooleem ñi ànd ak ñun ci émission bi di ci jiital alxalifa al am di ko sant di ko gërëm ci taxawaay bi ñu yàlla guddal fanam may ko kàttan di sant mbooleem ñun bokkal liggéey bi di ci jiital suñu jëwriñ sëriñ Fallou Mbacke mi nga xam ne nii moo jiite commission bii nga xam ne nii mu la di am mbégte lool ci jotaay bi ndaxte jàpp naa ne ñaari commission yi jàll ni ñooy ruuk daayira bi ndax xam-xam muy culture ak social rek mooy daayira commission yi des yëpp ñoom ñaar lay liggéeyal muy dimbalante bi ak xam-xam bi ñun nag suñu warteef ci loolu mooy ñoom ndegam naal nañ seeni naal di xaar mu sotti te commission bi nekk moo ko sotal ñu doo def benn rek daal koy xaaj ñetti xaaj te mooy avant ñu jëm ci koor bu nekk ci biir koor ak après koor avant koor gi bu ndigal jógee ci waajtaay wi dañuy bàyyi ba commission yëpp dage ban xam seen feuille de route ñu ñëw nag ngir nas nag xotta bi ñuy jaar ngir tànn vis loolu ñu def mm-hmm. léegi njëkk mooy kon ñu xool ci jumaa ji lépp loo xam ne nii mën naa indil gàllankoor liggéey bi kanam bi mm-hmm. ñu commencé ko laal par ndànk par ndànk bu fekku nekku liggéey bu mag a mag a mag a mag di projet bu rëy mm-hmm. moo tax biñ jublu see ñu jublu ci mboolem luy téye ndox mi ci biir jumaa ji mm-hmm. fottat ji yi fattoon yëpp mm-hmm. wutal ko ay jàlluwaay wutal ko ab seggukaay ba mbuus ci mën a jàll wala lépp luy mën a fatt turu yooyu bi mu paree ñu dem ci magasin bi xoolaat li fi nekkoon ci ay bagaas la ko jag te mën a xaar koor gi man ci jëfandikoo ko ren la ci am ayib lu koy yokk suñ paree ñu xool fii nit ñu war a nekk ci jotaay yi ci yokk yi li fa war a nekk ci wàllu assainissement bu leer nañ ndax ak cer dafa da cee jiitu ba kenn fa amee benn gaañu gaañu. dolli ca lépp lu fay làmp wala ventilo wala lind wala taq-taq ñu gaaw dindi ko set xayal ko ci xaynu jaar yoon dolli ci tamit waa waajal ndaw yi nga xam ne nii ñoo war a toggoo liggéey boobu du fi commission ñu wàllu kafe geeg meew meeg bisaab beeg jinjeer ji ñu wax leen condition yi nga xam ne nii ket gi da koo laaj ci bi jot lu mel noonu normes yi nga xam ne nii daa dëppoog état doxeenu adduna bi ak normes yi nga xam ne tamit dafa jëpp dëppoo ci murit gi ñu nu la war a fekkee booy tànk kafe gi sa col sa ni nga war a solo ni nga war a mel ci wax ci forme tamit ñëpp ñi nga xam ne nii war na noo jànkonteeg ki biir liggéey bi ay jafe-jafe ndax doggukaay bi fi jumaa gi léegi nga dafa gis daan daan daan ki ab daaneew mm-hmm. moo xam day miir moo xam dafa raxis mm-hmm. ñooñu ñëpp ñu wàññil leen ci euh, xëy yu njëkk yi nga xam ne nii loolu bu gaaree mm-hmm. danga mën a gaaw sobee ki ak ki mu am te loolu wàcc mi ci jumaa ci ndox ndax jumaa ci mit wut a manqué ndox te jamono ji xam naa xam naa day waar ñu bëgg a waaj ba lépp loo xam ne nii day soxal jumaa ci ndox moom ci wàllu jàpp wàllu saxal ay bagaas ak loolu lépp ñu préparé ko ci mboolem lim laaj lépp ba mu nekk ci yoon wu jaar yoon xam ne ku ñëw da nga xam ne ñii waagal naan bagage yi xool tàpp yi tamit yi war a dem ci bitti yi war a des si biir ndax tàpp yi ñaari façon la xam diis ñu def ba tàpp mën a jox yokk bu ne li mu soxla i tàpp yi xam bu julli ñëwee du gàllankoor julli ndax jumaa ji nag julli mooy mooy mooy mooy priorité yi mel noonu kon def na formation yi tàggat nañ gone yi utal na su commission ay njiit. utal adjoint jox la ay ay aw yoon woo xam ne ni chaque neuf jours wala huit jours yu ne. ci biir koor gi danga toog ak commission bi. rendre compte ci lu ñu joxoon na si na soon ci yow. defal nangam defal nangam defal nangam yooyu nga defoon yow. nga toog rendre ko compte. ci commission bi ñu tënk ko boole ko la dix jébal commission bi kon loolu mooy wàcce bu njëkk wi. biir koor gi tamit. ni def mooy ndegam am nan ay commission yoo xam ne nii am na seen i naan si ma wax ma léegi ay ay conférence hmm. la ma am ay formation ci biir hmm. ay gan dafay ñëw hmm. koo xam ne day ndox ñëw ku ñëw di wut si am dafay dafay ñëw moom kuy raaxaloo ci biir ku ñëw daa am ku ñu pour seetaan si da ko dégg rek seetaan ko daa am ñoo xam ne dañoo ñëw tamit ngir xool rek ambiance bi loolu lépp nag dañ koy waajal nos ko commencé ko ci suñu xëyee mun xëyee li nga xam ne moo jëm ci wàllu ndogu yi njëkk yi muy tàng yu mel ne tàng seet yooyu ñu waajal ko ba cinq heures yi day fekk lépp pare fekk fajar gi ñoom ñu fi ñëw ba raxas lépp luy bagaas rek ba teg ko ci place bi war a nekk. Mhm. ba trier ko sax ak trier ko. dugg mhm. dafa jëm ñu teg ko fa. Mhm. suñu xëyee ñu ñëw war a njëkk ci wàllu tàng la baag nekk ca bu ci nekkee. ba ay deux heures trois heures ñu ci wàllu mburu mi daal ñëw seen place pour ak yi mburu mi mën koo defar ñoom tamit fekk waaye mel nañ ci wàllu set ci wàllu xay ci wàllu nooy nekkee ci barab boo xam ne danga faa nekk wara a loo xam ne jëm ci ay biir nooy def bam jaar ci ay yoon bu nee ba ay quatre jëm cinq heures ginnaaw julli gi wala avant julli ñu teg doxin wi maam port yi nga xam ne nii moo jëm ci waxtaanukaay bi. Mhm. ñu nos ko ba nas koo xam ne nii kuy ñëw di ci waxtaan wi. Mhm. danga mën a toog tookaay bu mucc ayib. Mhm. di déglu bu baax li ngay def. te doo débordé. ba saa boo bëggee perturber liggéey bi wala tookaay bi. ay ndaw ñoo xam ne dana la dana laabiré. ñu ko defee laabiré la. jubbante la bu tëye nag. isolé isolé nag nee na fi moom lii fi nekk. bu defee bu nee ba dog des ba yoxam wi tënku jëm ci dogkaay bi ñu def ay ay yoon yi ale yoo xam ne nii dem ci biir am ci biti ale yi ci biir jumaa ji mooy ku jóge ci waxtaan wi bunt bi jàkkaarloo ngay jëm rek dem dogkaay ba ku ne ci ginnaaw nu waxtaan kaay nag bunt bi nekk nii bi ngay génnee ngay dugge jaare si ginnaaw yokk bu njëkk bi bu feesee yokk ñaareel ñetteel ba mu wër jumaa léegi moom amatul amatul fu ñuy wax ma fi mooy fii mooy fii waaye léegi lépp li wër jumaa jépp léegi ba kër sëñ Saaliw ga danga koy lal lalin woo xam ne nii foofu toog danga dogu ndogu loo xam ne nii dana mu ci ayib loolu nag jëmmen bam ba ndogal niroo ah, tey sëggi nuróo ñu koy def tamit nekk benn ba liggéey mën na si yoon saabun dogoo pare ñu àndaat làlliwaat liñ laloon benn par benn njëge kaas yi tekk yi yi ambra perdi yi boole yooyu yëpp yóbbu ci poubelle ba yóbbu lee ci saxasukaay ba defaraat jumaa ji ndax suñu sàll fa loo joxoon ci sart bi na lu ma ne xam ne ay set ñu jëm mhm. ñu jëmmal loo tamit ba fa noonu ndogoy ba fu ñëwee mhm. dans dix mhm. doo gis ne fii am na lu fa sa xew ñu daal delloo bagages yooyu daal di waajal nag julli gi naafili gi taxawu ko séparé gone jigéen ñi daral imaam bi ak yi ko aar ko ba kenn ko gàllankoor ci ab kare ba mu naafee pare ñu gunge ko ba mu dugg tootoom ba dem ñu delloo lépp luy bagage ci biir jumaa ji tëj ko nag dem ba suba lii mooy nas bi nga xam ne nii mooy nasub biir màgg biir gàmm biir euh, koor gi bu yàlla dogal nag koor gi jeex moo xam dama wer ci ñaar fukki juróom ñeent wala fanweer fan ci guddi googu tamit ñu yóbbuwaat yi nag ci balaas ba nekk nag waajal nag korte gi te mooy yóbbu tàpp ci fee jullikaay ba bale ko waajal ko buñ xëyee taxawu julli gi ba julli gi jeex ñu ñaanalante daal dellu nag daal di woote nañoo boo xam ne nag mooy nekk réunion bu gën a mag nag ñëpp teew ñu raxas bagage yépp waññiwaat ko sàmmaliwaat ko def évaluation bi liggéey bi lu ci am lu ci lu ci des lu war a yokk lu ci lu ci wàññeeku nos ko bind rapport bi senti sa lépp lu fi jaar ci bon ñu ne nangam la addiya yi nangam la boole bon ak addiya yi ak matériel fi nekk ak li ñu jëfandikoo lépp li ñu li ñu jox addiya ak li ñu jënd ak ki fi jaar sànni fi ab tàndarmaak yooyu yëpp ñu nos ko nosu def rapport bu bu jaar yoon tënk ko jébbal ko commission bi nga xam ne ñoo jotee réunion bi secrétaire bi wàcc ak ñoom nag bu déwénati lii mooy liggéey bi nga xam ne nii ñu noonu liggéey ci commission de négociation wasalaam. waaw xam naa rek bala ngay wax wasalaam xam naa lakk nañ ci waxtu wi lu bëree bari sax sëñ ji léegi mooy xool rek waaye ndax mënoon nañoo xam total rek somme bi ngeen liggéeyee daaw. waaw xam man doo doo mën a doo mën a tudd ab toit man ndax man damaa nekk benn sous commission kese benn commission kese comme dañu koy ma tudd ab ab ab som waaye daal xam naa daal 63 millions yi moom rafet na moom. 63 millions daal. def ko ci kaw man xam naa loolu gën naa rafet na moom. Mhm. damaa xamul ne nu mu nu mu détaillé nu mu ko demee waaye fekkoon ne ñoom ñi ko yoroon fi sax na mhm. waaye li la mooy. Mhm. dépasse moom ëpp na 63 millions yu teg moom. ëpp na ko. te loolu mooy commission yëpp. ndax commission tamit. bu ci nee daa bokk daa am ay ay ay kiyam am ay doxinam. Mm-hmm. mu na pare na ko da koy tënk nag jébbal ko secrétaire général. Mm-hmm. moom moo koy mën a évaluer xam ne. Mm-hmm. social nangam la. culture ñangam la. daa koy nos waaye ñun ku ñu soxla bu ñu paree ñun. na nañ suñu rapport. te loolu mooy moo tënk mboolem liggéey boobu. macha allah jërëjëf mbokk yi yaakaar naa ne 63 million mooy képp koo xam ne bëggoon ngaa gàddu benn bëccëgum ndogu ndogu rek ci jumaa ji jàppal ne daal boo joxee 1 million 300. mën ngaa ndogal benn bëccëg deux millions waaw kon mu ngoog waaw deux millions deux millions six cent deux millions six cent mooy kon ku ku bëgg a def benn ndogu rek deux millions six cent moo koy def waaye nag dafa am lu ci des te xam naa ne kooku ñëwu fi waaye kon dama ko yóbbaale loolu it nag pour ngeen mën koo seetaan ci rajo yi eh, ci télé yi télé yi wala ngeen mën koo seetaan ci siti jumaa ji te ñuy ñaan yàlla jumaa ji am télé loolu nag dafa laaj ay caméra laaj ay micro laaj ay lumière laaj yu baree baree baree bari te loolu it boo ko dee xool fii waloor wi nekk ci jumaa ji nga xam ne moom la ñuy liggéeyee direct bi ñuy def naafi yi ni ñuy jëlee mbooloo mi ni ñuy duggee boo ko dee xool ay millions yu dul jeex la kon yaakaar naa ne ci wàllu ñi nga xam ne ñoo yor communication surtout ay ay caméra ay lumière ay micro ay trépied yooyu yëpp ay bagages la yoo xamante ne bii jumaa ji dañ koy soxla te jàppal na loo ci jëfe rek sa trépied bi nga bàyyi ci jumaa ji ànd ak caméra bi na nga jàpp ne ma nga lay xëyal ci jumaa ji Tuubaa di la fa liggéeyal loolu it dafa bokk ci liggéey bu am solo ndax lépp dañ koy wane te jumtukaay yoo xarale rek ñoo koy wane Serigne Djily Bousso moo ci nekk maa ngi siyaar ñu nekk ci presse bi ñëpp di fàttaliwaat numéro bi UF bi 77 686 13 13 77 686 13 13 loolu moo andi liñ fi wax lépp ba ko mu ne 63 million defoon nañ ko ci kooru daaw ga te fas yaakaar ne goog ren gi dana ko romb foofu ndax mbooloo mi dana gën a bëri ndax bu njëkk ci ñaari yokk yi ñetti yokk lañ doon léegi nag gis nga léegi amatul fu muy yemal ndogu yi ndax nee ne li wër jumaa ji lépp dañ koy laal ba ci kër sëñ Saliou kon jàppal ne kër doomi sëñ Tuubaa yi ko yëpp sax mën nañoo dem ba ndogu yi dugg foofu yal nañ ci yàlla àggale ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bala ñëpp di leen bala àq di ñaanalaat sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Mountakha yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal gën a dolli ak wéram di ñaan képp koo xam ne def nga saw ñaq ci liggéey bi yàlla nga tabbi ci biir waqdi hawaaij allazina daamu fi xidmati wa hablahum maaramu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.